Serigne Modou Ndiaye Dieng Serigne Modou Ndiaye Dieng mi ngi feeñ jamono ci atum 1905 ci dëkk bu ñuy wax nag njare kër Sali ci dëkk boobu nag la feeñee jamono nag ci atum 1905 di doomu soxna Nogay Ndiaye Dieng ak Serigne Baara Yaasin Ndiaye moom Serigne Modou Ndiaye Dieng nag bi mu feeñee jamono waajuram Serigne Baara Yaasin Ndiaye mi ngi ko fayee nag ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam waaye moom nag ñu koy wooye nag Serigne Modou Ndiaye dëkk boobu nag mu feeñee jamono di njare nag kër Sali mi ngi nag ci région de Louga ci suuf si nag di Njàmbur dëkk boobu nag di njaree nag kër Sali maamam jëkkëram ju ñuy wax nag Sali Asta Diop Ndiaye moo ko sancoon Sali Asta Diop Ndiaye mii nag moo jur nag sëriñ Baara Yaasin Ndiaye sëriñ Baara Yaasin Ndiaye nag moo jur sëriñ Moodu njaay mii kon maamam nag Sali Asta joom Ndiaye nag moo sanc nag dëkk boobu nag di kër Sali ci dëkk boobu itam nag la feeñe jamono moom turandoo nag ngën ngi mbindeef gi sallallahu taala alayhi wa sallam di sëriñ Moodu Ndiaye di doomu soxna Nogay Ndiaye Jeng ak sëriñ Baara Yaasin Ndiaye am na nag ñu bokkal nag soxna Nogay Ndiaye Jeng mi ak sëriñ Baara Yaasin Ndiaye ñu mën ca ràññee sëriñ Sayer Ndiaye Jeng ibnu soxna Nogay Ndiaye Jeng ibnu sëriñ baara yaasin njaay sëriñ useynu njaay jeng ibnu soxna nogay njaay jeng ibnu sëriñ baara yaasin njaay soxna xujja baara njaay bintu soxna nogay njaay jeng bintu sëriñ baara yaasin njaay soxna ami baara njaay bintu soxna nogay njaay jeng bintu sëriñ baara yaasin njaay ak moom turandoo ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam wi di sëriñ muhammadu jeng ñu gën koo xam ci sëriñ moodu njaay ibnu soxna nogay njaay jeng ibnu sëriñ baara yaasin njaay ñaar ñu góor ak ñaar ñu jigéen nag la bokkal waajuru góor ak waajuru jigéen ak moom nag muy juróom ngir xamale leen nag njaboot gi mu bokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen nag ñoom ñooy ñan jigéenam bi nag di soxna xujja baara njaay bi mu matee dem kër sëriñ maam njaay nag lañ ko joxoon mook sëriñ maam njaay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna màggat faal njaay soxna sala njaay sëriñ seyxu njaay ak ku ñuy wax nag sëriñ bàcc xujja njaay ñii nag la soxna xujja baara njaay am ak sëriñ maam njaay ñu ko joxoon jigéenam bi nag di soxna ami baara njaay bi mu matee dem kër ku ñuy wax nag sëriñ ibra njaay nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ ibra njaay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax seex gébbu njaay sëriñ basiiru njaay Ndiaye ak soxna Maguette Ndiaye njaboot gi nag la soxna Ami Baara am ak sëriñ Ibra njaay mii nag ñu ko joxoon ñii nag ñooy lenn itim nag ci jarbaati Serigne Modou Ndiaye yi jarbaati Serigne Modou Ndiaye yooyu musuñoo jàmbat nag benn yoon nijaay lépp loo xam ni daal nijaay dana ko taxawoo jarbaat sëriñ Modou Ndiaye nag taxawu na ko nag ay jarbaatam ñi ci mat a dem kër nag bi ñu demee kër sàmm na leen nag di leen xool ca kër ya ñu nekk mooy seen kilifa jarbaat yu góor yi itim képp nag ku ci war a samp kër Serigne Modou Ndiaye nag moo sampal kër boole nag di la taxawu nag sa bopp ndax kat moo fii nag seen nijaaya doomi baayam yi mu bokkal nag waajuru góor ak waajuru jigéen muy sëriñ Sayeer Njaay ak sëriñ Useynu Njaay ñoom ñaari itam nag moo leen mujj jamono seeni njaboot itam nag ay doom nag la leen jàppe woon ba tax na itam nag lépp xam ne nii nag bu fi seeni waajur nekkoon defal leen ko moom mi nag di sëriñ Moodu Njaay nag defal na ko nag ñaari doomi magam yii nag muy sëriñ Sayeer Njaay Jeng ak sëriñ Useynu Njaay Jeng mii ba tax na nag ñoom ñi nag seeni doom jooyuñu nag seen waajur seen rakk waajur yi nag taxawul na leen fépp nag fu leen seen waajur nag waroon taxawu moom sëriñ Modou Ndiaye nag bi mu matee dal alxuraanul karim waajuróom nag moo ko dalal alxuraanul karim nag di sëriñ Baara Yaasin Ndiaye ginnaaw bi nag lu ko jébbal nag sëriñ Mor Ndiaye wàqi ginnaaw bu mu jógee nag ci sëriñ Mor Ndiaye wàqi la ñëw nag ci magam ju mu bokkal ndey ak baay di sëriñ Sayer Ndiaye Dieng mu eggaleel ko nag am njàngam moom sëriñ Modou Ndiaye nag jaar na itam nag ci dëkk bii nag di Gébbu Faal ci loxoy sëriñ Mor Ndiaye wàqi ginnaaw bi itam nag la fa jógee nag ñëw nag ci dëkk bii nag di Touba Ndiaye di dëkkub sëriñ Daaru Hasan Ndiaye fekk si woon fi nag nijaayam ju ñuy wax na sëriñ Mor Ndiaye Marema bi mu ñëwee nag ci dëkk boobu nag di Ndiaye fekk si fi nag nijaayam nag sëriñ Mor Mariama Ndiaye nijaayam nag sëriñ Mor Mariama Ndiaye tim na doom ju nag soxna ko ko ngir sëriñ Moodu Ndiaye nag dëkkoo ko nag comme soxna soxna Xadi Ndiaye moom nag mook sëriñ Moodu Ndiaye tim nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Kura Ndiaye geneen njaboot gi soxna Xadi Ndiaye amoon ak sëriñ Moodu Ndiaye mii nag dañoo génn àdduna mu wéy boo xam ne ni nag sëriñ Daaru Asan Ndiaye nag moo ko gor bi mu ci dëkk ba itim nag fekk si fa nijaayam nag sëriñ Mor Mariama Ndiaye fekkoon na fa itim nag doomu sëriñ Daaru Assane Ndiaye bii ñuy wax sëriñ Fallou Ndiaye fekk na fa doomu sëriñ Daaru Assane Ndiaye bii ñuy wax nag sëriñ Ousmane Ndiaye ci sëriñ Ousmane Ndiaye moom nag la jébbalu woon di ko xoole nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ba nekk fa nag ab diir ginnaaw ba nag la fa bàyyikoo nag dem nag ci dëkk bu ñuy wax nag njare na itim nag ci dëkk boobu nag di njare xorondoom itim nag ab diir njare xorondoom nag ba mu fa demee magam jum la fa fekki woon di ku ñuy wax nag sëriñ Ousseynou Ndiaye Dieng ñoo bokk nag soxna Nogay Ndiaye Dieng ak sëriñ sëriñ baara yaasin njaay mii ginnaaw bu mu nekkee nag ci dëkk boobu nag di njare xorondoom ci roon magam nag sëriñ useynu njaay jeng dafa bàyyikoo nag dem nag ci dëkk bii ñuy wax nag caameen na fa nag jàkka amoon na fa kër itam nag a mag a mag ba ba ca marché ba këram nag la ñuy dal moom sëriñ moodu njaay mii mu leen di taxawu nag ci lépp loo xam ne nii nag moom mooy dooleem dooleem nag ak kàttanam bépp gan goo xam ne itam nag ñëw na wara a tukki nag di dem nag ci saxaar gi sareetam nag moo lay yóbboo ko indi caamin googu itam nag amoon na fa nag ay kóllëre nag yu baree bare baree bari ndax mbooleem pël yeeg wolof ya fa woon xamoon nañ nag doomu sëriñ baara yaasin njaay bi nag di sëriñ du njaay jeng ba tax na itam nag melokaanam itam nag ràññeeku woon na fa lool moo xam itam nag ci am amam moo xam itam nag ci man-manam boole koog itam nag wërsëg wii ko suñ borom booleel nag ci wàllu ñaan itam nag daana ko jagleel nag doomu aadama yi newoon nag ci tundu caamin woowu itam nag xarit yu takkoo takkoo takku na ko fa ci biir kóllëre yim amoon nag ci dëkk boobu nag di caameen wala itam nag ci tundu caameen woowu ñu mën cee nag ku ñuy wax sëriñ Ousmane Thiam mën cee ràññee nag ku ñuy wax sëriñ Mor Thiam mën cee ràññee nag ku ñuy wax soxna Faati Thiam soxna Faati Thiam mii sax sëriñ Moodu Njaay Jeng itam nag tudde na ko doom ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Birayim Mbay mën cee ràññee nag ku ñuy wax sëriñ Jéey mën cee ràññee nag ku ñuy wax soxna Jëmmu Jaw ak ku ñuy wax nag sëriñ Ousmane Sàll soxna Jëmmu Jaw mii nag soxna sëriñ Ousmane Sàll mii la ak wax nag sëriñ Baxna Mbay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñum amaloon kóllëre ci dëkk boobu nag di caameen caameen googu nag la wéy nekk nag ba ci atum 1976 kim doon xoole sëriñ Touba Seexul Xaddim nag ak sëriñ Daaru Asan Njaay di sëriñ Ousmane Njaay yónnee ndaw nag ngir nag ñu woolu ko nag ci dëkk boobu nag di caameen indi ko itam nag bu sell bii nag di Touba nag ngir mu wuy si ko ndaw yi sëriñ Ousmane Njaay yónni woon nag ngir ñu woosi nag sëriñ Moodu Njaay nag ci dëkk boobu nag di caameen ñu mën caa ràññee nag ku ñuy wax sëriñ Bada Njaay ak ku ñuy wax nag sëriñ Ousmane Binta ñoom la sëriñ Ousmane Njaay waxoon nag ñu ñëw caameen amiin wool ko nag taalibeem bii nag di sëriñ Modou Ndiaye ginnaaw bu sëriñ Modou Ndiaye nag wéyelee ndigalul sëriñ Ousmane Ndiaye loolu nag ba ñëw nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba sëriñ Ousmane Ndiaye itam nag moo sàkku woon nag ci doomu sëriñ Bousso bi bii nag di sëriñ Omar Bousso ngir mu jagleel suuf nag taalibeem boobu nag di ba na nag doomu sëriñ Bousso bi bii na suuf su takkoo takkoo takku nag ci Touba Guédé sëriñ Modou Ndiaye mi suuf soosu itam nag sëriñ da koo jagleel itam kóllëreem yi mu amoon nag ci dëkk bii nag di Thiamène ak itam nag ci dëkk bii nag di Touba Ndiaye ba ci dëkk bii nag di Njare Xoro yondoom ngir képp koo xam ne itam nag mën na laa woo itam nag ci dëkk bu sell bii di Touba nag wuy si ko soo ñëwee itam nag mu jox la pàkk itam nag a mu di la ko jagleel nag ci ginnaaw nag bu mu leen woosee nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba caameen googu mu nekkoon itam nag kër gam fa amoon ba nëg na nag mi ngi ci loxoy njaboot gi ginnaaw bu mu ñëwee Touba nag Serigne Ousmane Ndiaye nag teg ko foo xam ne nii fu kawe la taalibeem nag mbokkam ba tax na nag mook sëriñ Ousmane Ndiaye itam nag ànd nañ fu baree baree bari fu baree baree bari itam nag féete na fa sëriñ Ousmane Ndiaye barkeb ñaan bi ko suñ boroom joxoon itam bépp taali bépp sëriñ Daaru Assane Ndiaye itam bu ci amoon ay jafe-jafe sëriñ Moodu Ndiaye itam nag daana la ko saafaraal ngir jëmmi sëriñ Daaru Assane Ndiaye jooju ak jëmmi Seexul Xaddiim nag jëñ bokk sëriñ Ousmane Ndiaye itam nag nekk itam nag ku ko fonk ba tax na itam nag mook sëriñ Ousmane Ndiaye itam nag ñoo bokk maam seen maam ji ñuy wax Sayer Mariam Ndiaye moo meññi Sala Asta Diom Ndiaye Sala Asta Diom Ndiaye mi nag moo sanc nag kër Sali fi nga xam ne nii nag fa la sëriñ Modou Ndiaye feeñe jamono Sayar Mariam Ndiaye moomu nag moom meññi nag Sala Asta Diop Ndiaye Sala Asta Diop Ndiaye moomu nag moom meññi nag sëriñ Baara Yaasin Ndiaye sëriñ Baara Yaasin Ndiaye moomu nag moom meññi nag sëriñ Modou Ndiaye mii ba tey sëriñ Sayar Mariam Ndiaye mii moom meññi ku ñuy wax sëriñ Ndiaye Fatma Diara sëriñ Ndiaye Fatma Diara nag moom meññi itam sëriñ Mor Ndiaye sëriñ Mor Ndiaye nag moom meññi itam nag sëriñ Daaru Hasan Ndiaye ba tey Sayar Mariam Ndiaye mii moom meññi soxna Roqaya Ndiaye soxna Roqaya Ndiaye nag moom Rokhaya Fall mi itam nag moo meññ maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina sëriñ Modou Sayar Marema nag mooy maamam sëriñ Sayar Marema itam nag mooy maamu sëriñ Daaru Assane Ndiaye bokkum nag sëriñ Ousmane Ndiaye la mu wéy nag des nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci ndigalal nag kam doon xoole sëriñ Daaru Assane Ndiaye di sëriñ Ousmane Ndiaye ba ni mu génnee àdduna nag ci atum ci kër gi mu amoon nag ci Touba Guédé fu masaa nekk nag jàng ak jàngale itam nag la fa nekke woon ba ci dëkk boobu nag di caam Lamine amoon na fa daara joo xam ne nii daaray alxuraanul karim la da daa wuti itam nag ñu koy jàngaleel mu leen di fay nag ngir alxuraanul karima tuubaa gi itam nag ba mu fa nekkee itam nag kasaalika ba tax na itam nag lépp loo xam ne nii daal lu baax la doomu sëriñ baara yaasin njaay bi itam nag ci la nekkoon nekk itam nag ku gëm sëriñ tuubaa seexul xadim waaye ku doy loo itam nag sëriñ ousmane njaay moom lay xoolee nag sëriñ daaru asan njaay nag ak na nag diirum nag li fi sëriñ ousmane njaay nag di nekk at mu jot itam nag daana ko jox nag aw nag ginnaaw bu fi sëriñ Ousmane Ndiaye bàyyi ko màggal giñ daa defal nag sëriñ Ousmane Ndiaye laataa ñuy boole nag màggali daaru Ndiaye yi at mu jot itim ci màggal googu ñu daa defal nag sëriñ Ousmane Ndiaye daana jox itim nag xalifab sëriñ Ousmane Ndiaye aw nag woo xam ne nii nag ngir jëmmi sëriñ Ousmane Ndiaye la loolu itim nag na ko nag ci diirug dundam daana def itim nag moom sëriñ Modou Ndiaye mu wut nag ay jàngkati alxuraan ñu wàcceel ko nag ab kaamil ngir jëmmi nag sëriñ Ousmane Ndiaye diirub li mu ànd ak sëriñ Ousmane Ndiaye itim jox na ko itim nag ay addiye yu takkoo takkoo takku ci biir addiye itim nag ñu mën cee ràññee nag ay fasi naari góor ak lépp loo xam ne nii nag mas naa ko am itam nag ci alal sëriñ Ousmane Ndiaye itam nag la xelam di daj ndax nag moom lay xoole nag Cheikhul Xadim dëkk boobu mu cosaanoo nag di njaree ay kóllëre itam nag amoon na ko fa ci biir kóllëre yi nga xam ne nii nag amoon na ko itam nag ci dëkk boobu nag di njaree ñu ràññee ci nag ay doomi baayam moo xam nag ñi baayam bokkal baay wala ñim bokkal nag benn baay ñu man caa ràññee nag ku ñuy wax sëriñ Moodu Maram Ndiaye sëriñ Baara Maram Ndiaye Cheikh Daaru Asan Ndiaye xorondoom ak ñu takkoo takkoo takkoo takku nag ci waa njare sëriñ Baara Maram Ndiaye mii sax sëriñ Modou Ndiaye tudde na ko doom Cheikh Daaru Assane Ndiaye mii itam sëriñ Modou Ndiaye itam nag tudde na ko doom ginnaaw soxna Xadi Ndiaye moom itam nag moom sëriñ Modou Ndiaye nag yoraatoon na yeneeni soxna ci biir soxna yim dëkkoo woon ñu mën caa ràññee nag soxna Faati Moor mook soxna Faati Moor nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee sëriñ Ma Penda Ndiaye soxna Faati Abdou Ndiaye soxna Xadi Ndiaye sëriñ Baara Ndiaye mi mu faye woon nag sëriñ Baara Mareem Ndiaye nekkoon nag doomu baayam ak ku ñuy wax soxna Xujja Ndiaye yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Anta Faal Ndiaye mook soxna Anta Faal Ndiaye nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna biti njaay yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna say njaay mook soxna say njaay nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ xaadim njaay mi toog ab toogaayam jóob njaay sëriñ baara njaay di baara nag mi mu fayee nag waajuróom wa muy sëriñ baara yaasin njaay sëriñ usmaan njaay di kim faye sëriñam ba sëriñ sayer njaay di kam fayee nag magam ja soxna aram njaay soxna anta faal njaay mi mu fayee woon soxnaam sa njaboot gi nag la soxna say njaay am ak sëriñ moodu njaay yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna jaara seexa soxna jaara seex nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee soxna aji njaay soxna faati baara njaay soxna ami baara njaay ak soxna faati murit njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna mareem wadd mook soxna mareem wadd nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag sëriñ cheikh asan daaru njaay dikkim faye nag doomu baayam cheikh asan njaay nag xorondoom ak sëriñ aadama njaay yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna màgget njaay soxna yi nag la yoroon njaboot yi tim nag la ci am moom sëriñ moodu njaay mi mu nekkin nag ku yéeme ku bëgg itim nag sëriñ tuuba koo xam ne nii soxla su waay masaa am na soo ñëwee ci moom nag mu saafaraal la ko moo xam soxlay ñaan moo xam soxlay xaalis moo xam nag ba ci xel nag ak xalaat nekkit nag ku bëgg njabootuk sëriñ Touba gi jaarale ko nag ci buntu kër gi mu jokk nag ngir yaakaar sëriñ Touba di kër sëriñ Daaru Xasan Njaay rawatina nag ki ko indi tuubaa di sëriñ Ousmane Njaay ak mbooleem njabootuk sëriñ Ousmane Njaay gi sëriñ Ousmane Njaay itam nekk itam nag ku ko fonk ba tax na itam nag moo ko jëlee ci dëkk boobu nag di caameen itam nag indi ko itam nag ci dëkk bu seel bii nag di Touba sàkku itam nag ci sëriñ Omar Bousso moom sëriñ Bousso be Bousso ngir mu jébbal suuf nag taalibeem bi nag di xaritam nag ak soppeem bi di sëriñ Moodu Njaay bari na itam nag ñu dëkk Touba rawatina nag ci quartier boobu nag di Touba Guédé ginnaaw yàlla nag sëriñ du Njaay mii nag moo tax itam nag ñoo am fa kër moo am ay boroomi kër yu bare bare bare bare bare ginnaaw bu mu leen indee Touba itam nag seenub dépasse itam nag moo ko yoroon seeni xel ak seeni xalaat itam nag moo ko yoroon seeni yitte itam moo ko daa faj njàmbur mu bàyyi ko woon itam nag kasaalika xam-xam ak barke nag bu ko suñ boroom joxoon ku sëriñ Tuubaa xaadim rasul ku jaxasoo woon nag sëriñ Alioune Mbàkke la ibnu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ba tax na sax sëriñ Alioune Mbàkke nag moo ko jullee bi mu fi bàyyi ko ku jaxasoo woon nag sëriñ Maxtaar Buso la moom sëriñ Mbàkke Buso ku jaxasoo woon nag sëriñ Omar Buso la moom sëriñ Buso bi Buso ku jaxasoo woon nag suñu mbokki Baay Faal yi la maamam ak maamu Cheikh Ibrahima Fall ñoo bokk menn maam muy sëriñ Sayar Marème Ndiaye moo meññi maamu Cheikh Ibrahima Fall waaye moo meññi itam nag maamam meññi itam nag maamu sëriñ Daaru Asan Ndiaye bokk la nag la ko fi sëriñam bàyyi woon di sëriñ Ousmane Ndiaye moom sëriñ Daaru Assane Ndiaye ba ni mu génnee àdduna nag ci atum sëriñ Ahmadou Ndiaye nag ñu gën koo xam nag ci sëriñ Modou Ndiaye mi ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci kër gi mu amoon nag ci Touba Guédé ci bisub ajjuma juróomi fan nag ci weeru tamxarit ci atum nag ci gàddaay gi ajjuma juróomi fan yi tamxarit ci atum nag ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 24 mai ci atum 1996 vendredi 16 ci xilaafaak nag buntu kër nag gi mu yaakaaroon di kër sëriñ daaru asan njaay booba nag sëriñ abdu razaax njaay nag moo nekkoon xalifa sëriñ daaru asan njaay waaye sëriñ mbàkke awa njaay nag la joxoon boppam sëriñ aliyun mbàkke moom cheikh mamadul moustapha mbàkke moo ko jullee nag ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi ay xalifaam nag nii la tëddee sëriñ xaadim njaay di kam faye woon sëriñ tuuba xaadim rasuul moo ko wuutu ci atu 1996 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñ boroom guddal aw ko nag ci Ndiaye mii ñu gën a xam nag ci sëriñ Modou Ndiaye ak mbooleem nag ñu mu séqal nag sëriñ Modou Ndiaye sëriñ Modou Ndiaye nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci liñ tudde ak màggal bis bii mu génnoon àdduna di juróomi fan nag ci weeru tamxarita saa bis bi dellusiwaatee ci at mi dees na ko fàttaliku nag ci kër gi moomaloon boppam nag ci Touba Guédé te lenn itam nag ci ak njabootam dëkk fa ci kër googu itam nag lañ koy fàttaliku màggal gi itam nag màggalug bëccëg la ñu ñaanal nag sëriñ Mouhamadou Ndiaye mii ñu gënoon a xam nag ci sëriñ Modou Ndiaye suñ borom yokk ay leeram nag te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey sëriñ daaru